you Argo TV ñëw nga kër Balna Sissoko hey ñan la ñuy jaakaar lool ah kan jiite Gundo Kouaté mooy ji moo ubbi hey hey kan moo jiite tëggkat yi tuuti Sissoko allahu akbar kooku mooy ndeyu tëggkat yi hey woykat yi nag kan la Luntanding Sissoko mi ngi fa hey déggal ma lii xol seddatina de bale bal na yaa boo koy dégg si soxo moo ko waral lu mu nekk ci kooraa ba baabu lay nekk ci kooraa ba jibi nekk ci kooraa alaaji nekk ci balafoo ba déggal ma lii kan nga may joxaat ay waay sama dawatina kanute sa baay imam la woon sa turandoo imam la woon kanute

chaîne préférée Argo TV. Encore une fois, on a le plaisir de recevoir un grand musicien, un grand instrumentiste, un grand joueur de djembe Son nom, Fa, Fa Sissoro. Fa de la grande famille Banaya. Fa, Fa Nagare. Alhamdulillah, bien, Fa nous là avec son fils euh, mali futur grand percussionniste aussi euh, fan de la grande famille de Banaya, Mais famille Banaya aussi, je crois que s'il y a quelqu'un qui commence à jouer djembé, mhm. instrument djembé, yaw là. Ok, nan approprié instrument boobu notamment et grand frère qui joue dans la famille fan de jëli jëy djembé djembé histoire parce que maman, dans daan fête. tu vois. ñoom fait une belle nijaay bu tudd Mama Yaay qualité, moom de ma tëgg. bale bànneex ñun dañ daan fecc moom ak alaaji mënu ko laajoo daan tëgg léegi mu dem ba benn maman kooku gaañu man loolu moo ma dugal fi génn bi kenn jàppul sama loxo ne ma nii ngay def nii ngay def à travers loolu moo motivé ma dem jëm-jëmee parce que tamit dañu judd si ay kora ay balafon ay guitare tu vois sa papa dafa daan tëgg dundum tëgg lépp le parcours à Dakar c'est quoi après la maison il y a orchestre y a un artiste nous fréquenté. parce que nous ñi dafa a ci spectacle dans les stars des trucs comme ça Moi, ndox un parcours exactement là là ok man avant que ma doon au Canada bambara yi je woo yëpp Nous, di je n'ai pas ay dix ans onze ans doog a dem et puis bu mu saan am ay grand sumu dañuy bàyyi kër yëpp ñëw fëgg kër Banna Cissokho man maay tëgg maa sama famille c'est comme banaya en parenthèse dafa mel ni comme équipe nationale musique la tu vois képp ku jógee Guinée wala Mali war a def benn concert Mandeng Sénégal fi ñu lay suggéré dañ lay ne demal famille banaya yaa boo xasee ba ñëw foofu

la guitare, am dorée, do, ré, mi, fa, sol, la, comme des claviers. Mais le aussi, am Parce que le premier note, il 5 cm. 5 cm, il me le ping. Deuxième note, il claque. 10 cm. Troisième note, il la base. 15 cm. il y a trois notes, il me le rythme beau, beaucoup jouer. Trois notes, tu vois mais exercice bi borom batterie papa maman papa maman ko ok ok pas euh, pas revenons à des termes beaucoup plus techniques quoi. Mhm. Mhm. Euh, ndax nga ma ci mhm. wax ni ci bi ngi leen ndax ci waaw parce que dafa am rythme nga buñ koy

dafay dem ak réew mi parce que gaawul pour gaawul bi do ah, réew mi lol lay wax. ok fa ça c'est li day woné ni voilà bi lay jàngal jëmee jàngaluñu la ko rek de manière aérienne quoi dañ ko jangal ak ay soubassement yu yu wóor quoi parce que xam aada tamit xam cosaan ak li ngay def lan la dafa am solo. Hmm. Fa, fekk fii entouré de jeunes frères bon mm. tey particulièrement on est venu pour le grand percussionniste mm-hmm. Fa Fa Cissokho nga sàddu si quelques kaddu rek par rapport ak sa petit frère Paco vraiment xanaa kontaan rek yow moom tu fais partie de Segeni Babi Kouyaté Koukoubani Bantamba da nga ñëwaat fekkaat ci li nga bàyyi nga ñëw moomaat ko loolu dañ la ciy sant quoi donc yow moom sa émission neex na ma ma participer parce que yoo xam nga fi ñu jaar xam nga suñu suba nu ñu màggee ak nu ñu nu ñu ndawee ba màgg quoi. donc ba ma waxee sama rakk dama ciy gën a kontaan parce que tey defar na tey formel na booy booy bëri macha allah. yaa ngi tëgg tey ñi nga gis ñi ñëpp ci loxoom lañ jaar yàlla def nag mu dem eggali joobam Canada mu toog ak rakkam tamit ñu ngi fay def beneen liggéey bu gën a yaatu te yaa ngi gis suñuy concert ak suñu vidéo yi ñu def donc dafa yore flambeau bi comme ni ma koy waxee

parce qu'on a un symbole on ñu si papa largué du garaaw te loolu la ñu war maintenir ça gis nga génération bi amaan na génération bu ndaw boo xam c'est grave ñu ngi relevé di def musique di def donc lu may wax rek lii moom mbégte la te jël ngeen koo xam symbole la ci Banaya donc kenn mënu ko dindi parce que il fait partie des membres de Banaya Sissokho ñoo xam ne ñoo formé ñoo defar. waaw man nag maa ngi tudd Joachim Mendy di Ndiago Pire waaw. ñëw fii nii fi nga xamante ni fii mooy yaa daanaka fii laa yaroo ci ci sama papa fa fii laa yaroo ci sama ci aar su ma dundee aar yàlla moom moo tax ma dund li ma buggoon la mais moom moo ma ci poussé yokku ma ci doole ba may tàmbalee tëgg lu ndaw laa woon mais boo xoolee boo xool Grand Yoff waxuma Grand Yoff Sénégal moomu daj bu ñuy wax asiko man nañ ci boole waa Grand Yoff parce que tey grâce à fa limu limu def ci man ba tay jii ne ñi nga ngi fenen ak fenen di dégg turu Asiko Grand f loolu fa da ci contribuer di rafetlu tay wote bi ngeen ko jaglel ni tay bés bi parce que fa ñun amuñu fayam parce que ñepp mo ñoñu tete man fa moo ma tete ma tete samay raq Asiko Grand bo gisé gisee yu jël relève bi sama loxo lañ jaar muy ay ñom vieux ay ñoom René ay ñoom Aziz ñoom ñëpp maag sama benn grand frère tam bu ñu wax Seydou Dia ñoo si nekkoon jàppal ci booy ba tey jii nii lépp faa ba ma gisee Seydou Dia moom boole la moom esaat la woon benn mas ma doon tëgg bu gërëbu faa woo Seydou ne ko booy bi kan la mu ne ko booy bi booy la mu woo ma ne ma booy dama war a voyage dem Kaffrine dama bëgg nga ñëw tëggal ma bu ma ne ko waa foog nga tàggu sama yaay parce que boobu booy laa woon quoi mu ne ma foo dëkk ma ne ko gàlla yaas dem si yàlla sama grand frère mu ne ma yaas sama copain la ñoo jàngandoo école a H&M Padoa ma ne ko amul benn problème boo fa ñëwee rek boo ma tàggoo rek niñ ma yóbbu noonu la ma jëlee yóbbu ma maak euh, ay raxam yu tudd Ousseynou ak Assane ak ñoom Moli ñun ñëpp ñoom Gérald ñoom ñëpp ñu fàtte ñoom Pa Massar ñoom ñëpp si lañ bokkoon ñoom def tournée bu mag kafrin waaw man la Moli bu Banaya fa luma ma wax dah mom bari na trop ndax ben fa suma frère la fa suma xarit la fa suma goro la ñu and fu ne defando lu ne tamit bokk lu ne tamit waaw ndax fa dafa doon kenn ci man ndax man moli fima fa indi ma tey si aar bi xam naa ko bu baax ndax tey bu nekkul woon faa mënoon naa nekk leneen waaye faa moo ma jëlee fa ma newoon indi ma ci aar bi ma ko ci sant nag bu baax di ko gërëm ndax faa moo ma moo jàpp sama loxo jàngal ma baa ba siin si aar bi tey lépp li nga xam ne rek am naa ko ci aar bi dama koy gërëmee faa ndax yàlla dafa ne ku gërëmul nit gërëmoo ko kon man lépp lu ma am ci aaru rek falaa laa koy gërëmee ndax tey musuma woon

ak Gundo Dakar camarade bi. xam nga foofu ñoom Babulaay sax ñoo def kooraay ak Jabel Cissé ko ba yónnee affaire yi Canada. xam nga mu nekk si album mais sama projet bopp ku mu toll nii man jógaguma pour sama projet bopp dama jóg pour projet Banaya. parce que man doomu Banaya fi soxla te loolu laay mos a doon te fu may promouvoir Banaya laay promouvoir parce que Banaya dafa am Paris. am États-Unis am London am Italie. am Dakar. léegi nag ñun dañ koy le Canada. oui. Parce Fass euh, c'est un plaisir de waxtaan ak yow ci musique toujours hein. ok euh, tey boo xoolee tey euh, avenir bu jëmbe tey dans le monde parce que instrument la boo xam ne dañ koy jouer partout en Afrique. ok léegi lan mooy particularité wu jouer këpp jëmbe sénégalais c'est la particularité c'est quoi la mooy def différence entre les autres.

bu ñuy wax karantaba maa ngi gis ñu ngi jàngal booy génnee li ma si gën a neex dañu lañuy jox suñu culture te di lancer message tamit partout si Sénégal bi ku am xale bu bëgg a mu xam cosaanam xam instrument yi maa ngi leen suggéré ngeen ñëw HLM Patte d'Oie seeti Numukunda am na benn local bu muy jàngalee ay xale amul sax fay ok faa kon léegi ñu bàyyi la nga def tàggatoo xam nga des derniers mots xam nga waaw par rapport ak euh, sa séjour au Sénégal ñu lay ñaanal aussi boo retour xam naa yaa ngi wàcc. Euh, dernier mot bi moom mooy mbooloo mooy doole te sénégalais ba ñu booloo lu ñu mësul am la ñu am mooy Coupe d'Afrique ma ñëw tombe ci muy lu ma bëgg a tàggat mbooloo mooy doole. nous ñu boolewee doole boobu tey ñu Coupe d'Afrique bi di d'ici gërëm encourager ñëpp di féliciter ñëpp di féliciter féliciter président de la République Sénégal Macky Sall bu rafet la taxaw franchement et puis di leen féliciter tamit yéen ñu may émission parce que Argo TV vous êtes très chanceux